aywa euh, Marcel nag euh, dafay def taxaw seetlu ci mbëkk mi muy l'immigration clandestine immigration clandestine soxna Fati ak benn euh, chiffre bi nga xamante moom moo koy illustré euh, lu toll ci ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak benn euh, ci ay doomu aadama yoo xamante ne dañoo originaire yoo bàyyeekoo Afrique sowu jant ñoom ñoo daal di ñàkk seen bakken gannaaw ba ñuy jéem rek jël gaal gi pour mën a dem ca Europe loolu nag mu di ay chiffres yoo xamante ne waa ONU ñoom ñoo ko daal di joxe démb et rien que durant le premier trimestre de l'année en cours maanaam diggante janvier 2023 euh, la ñu jot a ñàkk euh, yooyu le euh, doomu aadama yoo xamante ni kon ci Afrique subsaharienne la lañu la ñu bàyyi ko mu ni kon trimestre boo xamante ni moom moo gën a faat ay doomu aadama ci wàllu boobu noonu depuis kon atum 2017 année bi nga xamante ne 742 ci ay doomu aadama ñoom ñoo ñàkk seen bakken ci ci géej gi kon depuis 2014 organisation internationale pour les migrations des Nations Unies kon ñu gën leen xamee ci OIM ñoom ñuy compter lu toll ci 26 334 ñoo xamante ne dañ daal rek rek disparaître ci euh, ci géej bi nga xamante moom mooy mer Méditerranée année moom euh, détenir euh, le record le plus triste avec au total migrants yoo xamante jot nañ ñàkk seen bakkan ci année boobu noonu ñu gis ne que de à 2020 bi mu ngi doon wàcc waaye depuis deux ans maanaam kon depuis mbir baa ngi yéegaat de plus en plus ndaxte année ñu ngi tolloon ci 2062 et année 2022 2406 morts et sax di ragal sax ne ne que yi nga xamante moom la ñuy joxe ni mu gën euh, mu doon daal loo xamante ni du refléter la réalité euh, et les départs vers l'Europe mu ngi continuer di accentuer di di intensifier wu année après année mm. euh, notamment vers l'Italie loolu la ñu par exemple ce week de Pâques 3000 migrants jot neen atteindre li nga xamante moom mooy réewu Italie muy porter kon nombre total arrivé mm. yooyu les migrants depuis début année bi à personnes yoo xamante ne jot nañ kon déjà dem ca ca Italie mu di benn record boo xamante ne depuis ñaari at atteindre ko woon en 2021 ils étaient 8475 euh, migrants yoo xamante ni jotoon nañ mu mel ni am na ay ONG yuy dànkaafu. ba léegi yu mel ni ONG Horizon sans frontières moom nga xamante dafa constaté ne euh, yokkute boobu noonu am ci euh, ñi nga xamante moom mooy africain subsaharien yooyu te ñuy ñàkk seen bakkan ci géej gi lan. lan lan moo ko waral depuis la déclaration euh, du président tunisien Kais Saied en tout cas loolu la ñu remarqué nekk na mbir bi dafa yokk depuis que président tunisien bi euh, daal di def euh, déclaration jëmale woon ko justement africain yu bàyyoo yu bàyyee ko kon Afrique sow sowu jant loolu waral sax moom mii di Horizon sans frontières di laaj waa ONU ngir ñi tijji benn l'enquête ngir mën a gën a xam lan moo waral yooyu le perte en vies humaines et selon Boubacar Seye moom mi nga xamante ne moo jiite boobu les ONG semaine passée bu tolloon ci ñaar fukk ak benn euh, ci ay doomu aadama yoo xamante ni fii la ñu bàyyeekoo ci Sénégal euh, dañoo ñàkk seen bakken en tout cas moom lañ ko euh, signalé yoo xamante ne dañoo jël yoonu gaal gi yoonu géej gi donc ci ci gaal gi et même si le ministère des affaires étrangères moom partagé wul avis boobu moom reconnaître wul na ne ñooñu ils sont originaires du Sénégal waaye il faut dire que identification nationalité ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu compatriotes yi te ñuy jéem a jël te ñuy jël gaal gi di jéem a dem ca ca Europe ñoom migrants clandestins yi ñoom euh, dañuy am difficulté jafe-jafe ngir ñu identifier leen ndaxte euh, amuñu këyit wala du ñu wax du ñu tàggu kenn bu ñuy euh, bu ñuy dem bu ñuy jël yoonu géej gi quoi qu'il advienne kon Horizon Sans Frontières di interpeller autorités yi ngir rek ñu assister ñi nga xamante ne ñoom ñooy famille victime yooyu noonu en instaurant par exemple une cellule de crise ndaxte waajur yi ñoom surtout jaaxle leen soxna Fatou. aywa OIM également mi ngi lancer appel. Ah, OIM di lancer moom la ne moom moo jiite sax euh, boobule organisation di Antonio Vitorino euh, moom jàpp ne retard ak lacune yi nga xamante euh, ci ay opération de recherche ak sauvetage lañ koy faral di nemmeeku tax na tax tax na sax ba léegi ay ay nit di gën a ñàkk seen bakken ci ci géej gi l'absence totale de réponse au cours d'une septième opération de sauvetage a coûté la vie à au moins migrants yoo xamante ne dañ leen di inclure ci même décompte bi ñu doon joxe sànq ci ci ci ci commencement yi mu di 441 décès bu itam ci benn communiqué mu ajouté ne effort recherche ak sauvetage organisation non gouvernementale yi dafa wàññeeku euh, bu baax baax ci euh, weer yi ñu euh, ñu génn e projet migrant disparu boo xamante ne waa ONU ñoom ñoo ko daal di tëral dafay enquêter itam ci yeneen i cas bato yoo xamante ne dañoo rek réer ci géej gi où il n'y a aucune trace de survivant ay débris wala sax beneen opération de recherche et de sauvetage nga xamante ne mënewuñ ko ci yooyu les bateaux et quelques 300 personnes à bord de ces bateaux là ñoom ils sont toujours sukkandikoo ci organisation bi nee nag moom Antonio Vitorino euh, sauver des vies en mer loolu nag obligation légale la pour état yi pour réew yi nous avons besoin d'une coordination proactive état yi euh, ci effort yi nga xamante ne mooy euh, ci wàllu recherche ak sauvetage guidé par l'esprit de partage des responsabilités et de solidarité ñu ngi woon nag état yëpp ngir ñu liggéey ensemble ngir fexe rek ba wàññilu bu baax a baax li nga xamante ne moom mooy doomu aadama yu ñàkk seen bakken te ñuy jéem a jël gaal yi soxna Fatou Thiandoum en 30 secondes gis nañu ne mbëkk mi ba léegi dafa nekk une réalité bi ci mujjee mooy euh, waaxi ndakaaru yi euh, bërki démb démb rek ñu ngi koy wane euh, ci télévision yi benn embarcation bu ñu doon yóbbu bañ jàpp leen ba tey sax ki ñu naan le passeur. wàññeeku na mais ba léegi mi ngi am. Mm-hmm. te pourtant. alerté nañu wax nañu wane nañu euh, coono yi nga xam ni nit yi ñi ngi koy daj bu ñuy dem ci mbëkk mi. Mhm. li ci ñàkk seen bakkan kenn xamul fu mu nu mu toll. Mhm. boole ci tamit am na fu nga xam ne boo fa eggee pratiquement da nga tayle sa bakkan. des fois di nga dem te doo egg. ñu mm-hmm. téye la fenn ci ay camp yu nga xam ne fa lañ leen di jàpp. Mm-hmm. di leen maltraité et tout mais ba léegi xale yi ñu ngi continuer di mm-hmm. dem lan moo tax ñuy dem xëy na yaakaar ju ñu am fële la ak i tamit yaakaar ju tas ci seenum réew. mais quoi qu'il advienne dem moom comme ni ko euh, woykat bi doon waxee booy dem demal ci anam yu mu yu mu gën a baaxee. loolu moom la ñuy conseiller xale yi nañu bàyyi di braver la mer et les risques qu'il y wax dëgg yàlla jéem a xool naka la ñuy def bu tukki ci anam yu po na ak yoon. Mhm. te duñ ci tay tay seen bakkan. très bien 7h35 moo jot ci Grand Dakar. de quoi est-il le nom daf ñu yóbbu ci Grand Dakar benn euh, koñ boo xam ne nag euh, ki ñu ko tuddee kàngam la ci wàllu course de fond doomu Éthiopie la génn